lu tournel la jamono ci France ba léegi sax bi ngeen may woo maa ngi doon jokkoo ñi nga xam ne ñooy service consulaire yi mm-hmm. ak service diplomatique euh, ki nga xam ne ma yor euh, communication bi nekk ci euh, ambassade de France di mm-hmm. Noël maa ngi jokkoo ak moom mm-hmm. ci mbir moomu ki nga xam ne sax mooy ministre bi Moïse moom mbir mi daf xaw a fekk parce que dafay ñëw fi doon benn tournée doon nemm ko ni doon distribuer fonds politique euh, yi doon dimbale wàllu Covid diaspora bi mm-hmm. moom tam xam naa say jokk moom léegi nii sibagi wax na ma dana ma rappelé waat parce que dañuy mm-hmm. def benn mm-hmm. euh, ni dafa doy waar parce que réer gi dafa xaw a bett kenn foog woon Mm-hmm. jaarifa moomu nag ñun bi nga xamee ne am na si yeneen gëstu yoo xam def nañ ko si mm-hmm. xamal nañu ne lii di police bi France bi jug nañ si dugg si biir ak enquêteurs yi di amal enquête bu am solo mm-hmm. maanaam di xool téléphone yi nga xam ne moom yoroon na ko ak numéro téléphone bi di ko vérifier ba xam xama buñ ko dee xool borne bu mujj borne maanaam li nga xam mooy euh, émetteurs yi xam fan la mujj féetee fu mujj borne si yooyu lañ nekk jamono ji euh, ba léegi daal li si jotawul ba léegi a wax dëgg yàlla ñu ngi dund wala dundut li ñu ñaan nag mooy. mu mhm. dund amiin amiin ba parce que. parce que Mantoulaye. Mhm. réeru réeru fii moom France moom dafa doy waar. parce def lu mhm. ñi raas démb ñi raas xam nga du ko si Mansour waxte. moom a gën a wolof. loolu moo xaw a doy waar moo xaw a moo xaw a ba léegi sax maa ngi ciy jokkoog sama yenn taske def baat ñuy wax ne bu fekkee ne jaari sow niñ ko accueillir ci sax ñoom ñi accusé nguuru Sénégal ndax nee xale bu mel xam ne xam-xam lam di génie mhm. kooku boo ko yóbbu si réew yu mel ni da nga a dëkk si conditions yu leer bu mhm. tol ko internat bu tol ko loo xam ne xool si lu muy lu muy dox lu muy dikk mhm. parce que maanaam y a une guerre idéologique boo xam ne dafay am si entre réew ak réew mhm. te xale yi mel na jaari sow nga xam ne ay xam-xam la ay borom futur ñoo xam ne ay am ay say ay ay ay seen futur science scientifique la ñu nekk dañooñu mhm. réew mu sanoon àddina da nga koy am loolu nag moo nekk li nga xam ne mooy débat bi am fii bi soulevé gun fii mhm. li si gën a ràññu ko mooy diaspora bi moom ku waaye xam xarit ak mbokk ak dëkkandoo ñëpp a ngi si sàkku di di passé information bi boo xam ay mbokkam nekkul si ay wala nekk na si mbokkam yooyu yëpp waaye officiellement ñu li ñu si déggoon rek mooy dañuy jokkoo ak ñi nga xam mooy consulat bi ak li mooy euh, ambassadeur bi ak ñi nga xam ne ñooy yor wàllu euh, diaspora sénégalaise bi nekk fii ci France ak fii ci Paris su ko defee ñun li ñu ko toppal di ànd ak yéen si information bu maanaam si réerum jaari sow mu nekk loo xam ne kiis gu dal si waa Sénégal ndax kenn yéenuwu ko ndax suñu ndam la euh, suñu wax dëgg yàlla mm-hmm. suñu référence la mm-hmm. xale boo xam ne wax daal Sénégal Sénégal gépp awoon moom si yaakaar yàlla mm-hmm. xam ne vraiment bu mu dellu si waat si amiin amiin foofu la tollagum fii si Paris soxna Mantou lay. même. bare si fête bi jugee comme que janvier. waaw 4 janvier le reprise scolaire bëgg dëkk bi ak académie yi nga xam ne mu nekkoon si collège yeeg si yenn lycée yi. université yi sax am na ñoo xam ne reprendre guñ ak reprendre guñ. waaye waaye nag moom ñi nekkoon ki nga xam ne mooy lycée Louis le Grand lycée Louis le Grand lycée voilà lycée Louis le Grand. ñu ngi nekk si digg dëkk bi nga xam nekk si biir Paris booy xool si premier arrondissement quatre vingt ça c'est vraiment dans Paris. ba mhm. am sécurité la moom parce que booy xool élèves yi gën nekkoon. Mhm. waaye résidence bi mu nekkoon la résidence bi Coursin nag di fay enquêteurs dama ñoom fekk ñu ko fa parce que dañoo fekk néegam ba daal ci bi ñu ko bëri nag fekk ñu fa dara gisuñu ko. ñi fa jokkoo tamit xamuñu fu mu nekk ñoo ngi xool ba xam ay mbokkam la fekki wala fekkul ay mhm. mbokkam loolu daal nga xam ne mhm. moom mooy borné ak téléphone benn xaritam bi ñu wax ne peut être moom la àndaloon moom la enquêteurs yi di jéem retrouvé ba xam loolu mu si nekk loo xam ne nag euh, mbir mu doy waar la jamono ji boo xam ne daal xaw naa di tiis ak jaaxle si mbiru euh, autorité consulaire rek ak diplomatique yi nekk fi ca France rawatina ñi nga xam ne mooy mbokk yi sax ci diaspora sénégalais yi xarit bi jotuñu ko wala xarit bi gis nañ ko. voilà. ba Cheikh. Pape xarit bi. allo waaw. man ne gis nañu xarit bi. waaw. allo. allo waaw Mantou maa ngi xarit bi laa wax xarit bi ñu njortoon ni moom la àndal xarit bi téléphone bi woote nañ ci xarit bi mu ngi gis nañ ko walla xarit bi kenn jotu ko kenn gisu ko moom non xarit bi kenn jotu ko xarit bi tam kenn jotu ko jotuñu xarit jotuñu ci téléphone jaari sow numéro téléphone bi jotuñu tamit ñoom ñaar kenn répondre si ba léegi moom la enquêteurs yi nag bi xool ba xam qu'est-ce qui s'est passé parce que fu mu mujj borne Euh, parce que booy xool tamit euh, la diaspora alpulaar nag ma baal euh, moom dañoo xaw a bari fii si France lool. Mhm. maanaam dañu fa nekk si ay mbokki mhm, alpulaar ak yooyu. wala peut être gën xool ba xam dafa def noonu ñoo ngi ba xam bu fekkee ne jaari saw si aéroport yi nekk si France bi ba xam dafay jël benn dafa jël mhm. TGV génn France lépp ñoo ngi xool ay les enquêteurs sont en train de vérifier tous ces passages pour xool ba xam dafa borné fenn wala dafa dagg biir son nom mais ba léegi daal loolu amaguñ ci benn loo xam ne wér na ci enquête fi mu toll waaye nag ñoo ngi siy jokkoo di laaj ak ñi xam ne ñoom ñooy proche bi di confirmer ak li nga xam ne mooy ambassade bi. man de njortu bu rafet boobu laa ko am rek. li mm-hmm, xam naa ni de mm-hmm, xëy mu jël mu jël oto déplacé wu. dem beneen dëkk dem beneen réew rek comme. Tugal mm-hmm. moom bokkut ak Afrique. déplacement yi taxu koo jafe. mën na